saasi te jot nga sa payoor rentrée scolaire bi naka la nar a demee waaw yow ngay bijaaw te fekk yaa ngi jot sa payoor fekk sax yaa ngi jóor sa payoor ci sa digg lal yaa ngi si mais yaa ngi si sa biir nekk facture courant di la bëgg a rey paas di la bëgg a rey dépense bi di la bëgg rey ak yeneen luwaas bi ñoom ñaar fukki weer ak ñeent ñuy ay journaliste ñuy ni yéen ñuy ay acteurs de la presse ni yéen ñuy ay travailleurs organes de presse ni yéen ñaar fukki weer ak ñeent kenn fayu leen ñu nag waa FRAPP mënuñu ñàkk ñaawlu loolu mënuñu ñàkk mettitlu loolu ñun waa FRAPP ñu ngi naqarlu lii dal seeni mbokk suñuy mbokk liggéeykatu Excaf Télécom rax si dolli ay at a ngi ñu leen di dagg ñuy dagg seen payoor li ñu war a verser IPRES ak caisse de sécurité sociale bu ñu demee IPRES ak caisse de sécurité sociale duñ fa fekk tous ñu ne leen cotiser wuñu leen eh, cotiser mais ñun dagg nañ ñu kon xaalis bu ñu dagg fu mu dugg yow employeur yow patron da nga war a dagg liggéeykat yi yow nga jël beneen xaalis boole ko ak li nga dagg liggéeykat yi dem verser yow nga dagg liggéeykat yi. versé woo loolu ministre du travail waru ko seetaan gouvernement du Sénégal waru ko seetaan sama xel mën na nangu benn weer mu rëcc la ñetti weer mu rëcc la at sax mu rëcc la waaye ñaari at ñetti at ñeenti at ñu ne gouvernement du Sénégal am na ñu ne président de la République am na ñu ne ministre du travail am na ay at ay liggéeykat toog ñu leen di dagg te kenn du ko versé. depuis 2014 dinañ ci ñëw muy 9 ans juróom-ñeenti at amul versement waaye loolu ñaata million la ñaata milliard la ak fan la dugg liggéeykat yi bu ñu yuuxoo ñu ne affectation li ci gën a métti mooy ñu affecté la foo xam ne rajo amu fa télé amu fa maanaam yow. homme de média ñu bëgg la affecté foo xam ne ay mur rek moo fa am te boo moytul sax mur yooyu dina daanu sa kaw dinañ ci ñëw ay si ndax ak ay picc ñoo fa nekk depuis 2014 loolu la seen mbokk yi di maanaam di dund xam naa yéen da ngeen sañul wax rek yéen mi toog fii da sañul wax rek moo tax fan yii di ñëw bu ñu leen woowee manifestation pour waa Excaf bu leen manqué bu leen manqué ndaxte ñii seen dossier bu avancé wul ça veut dire que yéen seen dossier du mës a avancé ñii dañoo war a ànd ak ñoom ba mu saf sàpp ba seen dossier réglé wu comme ça duñ ko defaat yeneen travailleurs des médias ndaxte bu ñu amee fit def ko waa Excaf Télécom te Excaf Télécom nekkul lu tuuti ci Sénégal ça veut dire que am nañu fit. def ko xaw ma waa 313 waa Dakar Buzz xaw ma waa 7TV xaw ma euh, waa TFM wala je sais pas moi euh, waa 2 léegi nag ñu ngi naan état bi ameloon na xaalis euh, naka Excaf waaye état bi ñun lu ñuy wax état bi mooy état bi bu fekkee dafa ameel xaalis ay organe de presse. wala ay entreprise mais bu fayee entreprise boobu état bi warul fay rek toog noppi état bi dafa war a fay ba pare ne par la force da ngay fay liggéeykat yi munoo jot xaalis bi nga xam ne état moo la fay ba pare nga ne banques yi nga fay ba amatoo looy fay liggéeykat yi ñu ne banques yi ñooy priorité mais banques yi du ñu dee bu dee banque moo sonn. bu dee personne morale moo sonn kon personne physique lu muy wax personne physique mooy nit njaay ak noppam personne morale mooy entreprise maanaam du nit njaay ak noppam bu dee banque ak i moyen wam moo mun sonn ba muy prioritaire kon nit njaay ak sonn damm na tàyyi na sonn na moo tax ñu wax état dégg nañ ne yow état du Sénégal yow président Macky Sall yow gouvernement du Sénégal danga amee amel xaalis Excaf Télécom Excaf for nañ ci weewu béy sax ñenn ñu naan xëy na mot na 7 milliards wala 8 milliards léegi yow état du Sénégal dañoo bëgg a xam amel nga xaalis Excaf waaw am déet boo ko amelee xaalis amel nga ko 7 wala 8 milliards am déet bu dee fay nga ko ba pare nga wax ñu ko comme ça ñu ñu mën a comprendre lan moo tax liggéeykatu Excaf 24 mois lu ëpp ñaar fukki weer ak ñenn jotuñu xaalis yenn saay nag waa état bi dañuy lëkkaloo ak patron yi. patron am man état fay naa la waaye bu ko wax man du ma ko wax xëy na sax ci xaalis bi ma lay fay boo bëggee xaalis bi gaaw a génn ndaxte état bi ñëpp la amel bor boo bëggee xaalis bi gaaw a génn ñu ne léegi ci huit milliards yi ma la amee man état boo ma si joxee un milliard d'accord sa dossier gaaw a génn gis ngeen léegi ñu commencé alamaan nag pour téléphone yi <laughs> nañu waxante dëgg léegi ñu commencé alamaan may mun a jëlal leen non des bavards téléphone bu sonné nga jël tur balaa ñoo fay génn xam naa ni danañ am xaalis bu doy pour jox ko suñu mbokk ex excaf yi mais nañu waxante dëgg loolu dëgg du yoon corruption moo fi am ba même état buy fay bor day naan boo buggee sa xaalis gaaw a génn waaw loo mu mun jox loo mu si mën a jox mais yow du sa xaalis donc d'accorduñu tey d'accorduñu ëllëg ñu ameel xaalis les travailleurs de Excaf ñun nag li ñu waroon def def nañ ko balaa ñoo toog fii tey dañoo bind le patron de Excaf balaa ñoo interpeller gouvernement du Sénégal man dama bind patron wu Excaf ne ko ah dégg naa ne da nga ameel sa liggéeykat xaalis bëgg nañ nag toog ak yow pour xool loolu naka lañ ko mën a régler mu ne ma non non non amul problème. état du Sénégal amel na ma xaalis te foog naa ne ci weeru mais bii dinañ ko régler ñun waa FRAPP ñu wax ko liggéeykatu Excaf ne leen nag yéenay décider waaye mois de mais bi yàggul mais teguñu sax semaine ñu dàq kii di Lansana jàmbi bi nga xam ne mooy secretaire général madame Sempix ah ñun nag suñu xel jaxasoo ñun ñu bëggoon def médiation diggante patron bi. ak liggéeykat Excaf ba tax na ñun bi ñu yigéey ñoom seen jafe-jafe waxuñu ko fenn waxuñu ko Facebook interpellé wuñu gouvernement dañoo woo ki nga xam ne mooy monsieur Diagne jiite Excaf mu nañu na seen xel dal gouvernement du Sénégal amel na ma xaalis te ñu ngi baral mbir mi pour ci weeru mai bi ñu régler ko balaa balaa ñu naan xaw ma suba wala gannaaw suba ñu dàq ki nga xam ne mooy secrétaire général bi loolu kay mooy ay wax yu waroo bu boobaa ñun amatuñu amatuñu qualité ci patron ki nga xam ne mooy Excaf ndaxte boo dàq yow boo dalalee suñu xel ba pare nga dàq ça dire que yow bëggoo coow ndaxte ñun dañoo ne ah yow patron Excaf na nga jiital na nga fullal na nga jëmmal waxtaan donc loolu mooy wax ci waa Excaf liggéeykat yi sonn nañ ba yenn saay bu ñu toogee xawma fukki weer ak ñeent jotuñu payoor ki jiite Excaf TNT mu jox leen ay TNT ay décodeur TNT ne leen loo leen ko jaay yéen ko moom attends loolu dinañ ko def borom kër père mère soutien de famille plus de vingt quatre mois fayoo ko nga koy jox ay décodeur TNT naan ko dama jaay ko loo ci am waaw mën nga yóbbu sa kër mais y problème état bi toog di seetaan lii mooy état bi il est complice man nag fi may daanelee ci dossier boobu mooy d'accord ñu ak li ñu dakk Lansana Diandy ñu ngi interpeller SYNPICS au niveau national ñu ngi leen di interpeller yéen ah yéen bu ngeen deful gat sa gat sa pour les acteurs de presse gars yi dinañ leen boof lekk leen de seeñu leen mais da ngeen di def gat sa pour yéen tam pour seen i intérêt sinon gars yi lekk seen xaalis noot leen ba pare du mujj fenn avec la complicité de l'État du Sénégal nous dénonçons le licenciement arbitraire abusif du secretaire général de la section Synpics de Excaf Télécom Lansana Diandy ñu ngi méttitlu liggéeykatu euh, Excaf li ñu toog lu ëpp ñaar fukki weer ak ñeent te kenn fayu leen Euh, fan yii di ñëw dinañ manifester ci buntu Excaf fan yii di ñëw ah euh, du rek Lansana Diandy moom la ñu licencié Lamine Ndiaye tamit dañ ko licencié waaw waaye de toute façon Lansana Diandy ak euh, ki nga xam ne moom mooy Lamine njaay mooy ñaari ñaari ndeyu mbind li ñoom dinañ waxal seen bopp donc ñu ngi ñaawlu Lamine Ndiaye ak Lansana Diandy yi ñu licencié foofu ca Excaf Télécom donc ça veut dire que problème bi waajul en tout cas suñu xel jaaw na bu ngeen déggee nag déposer nañ lettre pour manifester buntu Excaf bu mu leen jaaxal bu ngeen déggee fan yii di ñëw ñu ngi manifester avec tous les collectifs pas yii rek collectif yi FRAPP di liggéeyal war na romb ñeent fukk defe naa ne ko jot na ñun ñëpp ñu def benn sañ ku ci nekk indi sa yuuxu ak sa pancarte ku ci nekk indi sa banderole ndaxte nooteel bi dafa doy ndaxte wóor na ma nekk waa Excaf Télécom bu ñu amoon doole Pastef di génn ci biti kenn du leen def nii ak ñeneen maa ngi siy ñëwaat euh, waa Excaf Télécom les travailleurs vous avez tout notre soutien toute notre solidarité mbir mi nag jeexagul manifestation ñu nga fa takk fa rip lu ngeen def ñu nga fa bu ngeen yéexee sax ñun ñu woo leen réunion ñu xool ñun ñëpp collectif. d'ailleurs lu tax ñu boole ay collectif ñu def tey conférence de presse c'est pour déjà vous donner un signal pour ñu joxante loxo ñun ñi nekk fii ak ñeneen ñi nga